lu ñu mën a wax tey mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci ci hôpital régional bi nga xam ne ñun ñëpp bu ñu yeewoo foofu la ñuy dem pour mën a améliorer suñu état de santé comme ni ñu koy waxee hôpital mënul dem bàyyi àddina mais addina aussi mënul dem bàyyi bàyyi hôpital donc gis nañu manquement yu bëre yi nga xam ne am na ci biir hôpital régional bu Tambacounda donc soo xoolee tey lu mel ni fibroscopie ñu koy def il faut ni ñuy ñi jóge fii dem ba Kaolack et bo xolé Tamba euh, mu nek zone Carrefour gox-goxaan yu ñu wër yëpp pratiquement fi lañuy ñëw pour fajo mais problème yi ñi njëkk yu ñi njëkk yu ñi njëkk rencontrer d'abord moy li gëni a moy soins primaires so soo service d'accueil

matériel de qualité amé té personnel bi c'est pas qualifié mënul dem su personnel bi qualifié té matériel de qualité amul loolu mënul dem mais bu féké état dafa bëgg jël ay réformes jël jël jël hôpital yi bëgg ko def entreprise il faut que muy respecter normes yi nga xamné mom la entreprise di am. et puis yaa amna ay corps de métier yi nga xamné ay corps de métier yu bees la yo xamné ne moy tax santé di mëna améliorer wu benen bi ci gën bi ci gën ndaw mooy problème insuline Tamba dañuy tok week-end lëmm wala semaine lëmm duñu am insuline ci biir dëkk bi en l'occurrence pratiquement boo xoolee muy atrapique muy mixtar ah, mais insuline mais mais diabétique ñokoy soxla parce que boko ko amul ñemewoo lek en réalité soko amul pas lek donc région boutel nitamba avec la politique de santé bi président de la république avec des milliards yu pour ñun vraiment euh, gâcher la thé ni dugg suñu hôpital di gis état bi nga xamné hôpital bi mom la tollu légui nak ñun euh, euh, euh, ay population lañu su ngeen ñu mayé opportunité bi pour ñu mëna wax président directement lu xew dañ ko dañ koy dañ koy dañ koy saisir di wax nak nag ñu ci dara mais lu ñu intéressé moy au moins que mom politique yi mu bëgg def dimbal bi mu bëgg défal askanu Sénégal vraiment ñun Tambacounda ñu gis suñu mais particulièrement ci côté santé parce que problème yi mënul jeex condition d'accueil c'est un problème ci fan yi nag macha kon ñëwam am na parce que bu dul won ñëwam équipement yi ñu dugal fii tey ci biir hôpital bi muy muy bloc opératoire yu ñu épiqué yu ñu équipé yi cardio centre cardiologique bi ñu bi ñu équipé du doon won am donc kon nak nay tek tànk nay nay teg tànkam foofu di faral di def chaque mois bu mënon ñew mu ñew parce que bu fekkee du ñew dëkk bi duñ ko mëna défar donc ça bu ñew dina am ay ajustement yu am donc vraiment ñu ko ci féliciter mais di def un appel solennel pour lui dire que ni dëkk bi lu mu fi mënta def té réglé wul problème hôpital régional pour man réglé gul d'abord ben problème pour le moment